asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi seetaan Gambian Talents TV ci biir réew mi ak ci biti réew mi ak ñi nekk ci jotaay bi ak ñi nga xam ne ñooy doxal programme bi le ak yi ci yi ko jiitu yépp ma jiital ci kilifa kër gi di Pa Ousmane Diouf sunu xarit maa ngi leen di nuyu di leen ziar waaye di nuyu itam soxna Fatou Samb ak tim bi mu àndat ci liggéey bu rëy bu diis bu sell bii nga xam ne taaral nañ ko mbokk yi nag man la al oustaz Mouhamadul Amin Kane al yi xam naa su ma ne bu site Limits Radio ngeen may gën a gaaw a mi nekk itam ci ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci kër gile di Gambian Talent TV sama kàddu li ko waral mooy gërëm leen yéen ñi nga xam ne yéenay followers yi nga xam ne dañuy taamu di ànd ak télé bii di Gambian Talents TV mbokk yi fukki weer ak ñaar du fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñaar du fukki waxtu ak ñaar fukki ak ñaar du minutes ak ñaar wante fukki minutes ak ñaar du fukki seconde ak ñaar yéen nag yi ma lim yépp fukki weer ak ñaar mbaa sax lu ko jiitu yéen a ngi ànd ak ñun ci seeni seet seetaan bu sell ci seeni communes yu rafet ak support bu rëy bi ngeen di support télé bii nga xam ne bokk na ci liy jëmale réew mi kanam ndax lépp loo xam ne dafay jox ndaw ñi am xëy mu di liggéey bokk na ci liy jëmale réew mi kanam kon yéen ñi nga xam ne yéenay faral di seetaan tele bii di Gambian Talents TV yéen a tax mu yëkkati sama kàddu ci sama kàddu dooree ko ci Pa ba ci Faatu ak xale yi nekk ci biir kër gii di Gambian Talents TV ci sama kàddu beneen yoon yéen ñi nga xam ne yéenay sunuy followers ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla yokk képp kuy seetaan télé bi yal na la yàlla yokk yàlla bu ngeen dellu gannaaw yàlla bu ngeen feebar yàlla bu ngeen ñàkk yàlla bu ngeen am naqar ci barke yonent bi yal na ngeen am jàmm yal na ngeen am mbégte yàlla na ngeen am koom-koom ci barke Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal itam yàlla may ñu ñu yàgg a fekkee te yàgg a te yàgg ànd eh, ànd boo xam ne bu yàlla gërëm lay doon beneen yoon seen mbokk Mouhamadul Amin Kane Al Mansouri Gambian Talents TV asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu télé bi ca kaw ca kanam ci lu baax incha allahu tele bi itam yal na ko yàlla yokk. ñi fi yëngatu yëpp yal na leen yàlla yokk yal na leen yàlla aar yal na leen yàlla sàmm ci barke yonentu yàlla muhammadin yal na dem ba jur ay télé yu bare bari ak i rajo ñi fi nekk ñëpp yàlla bu ci kenn dellu gannaaw ndax ndaw lu muy yëngatu bu ci gisee lu koy jëmale kanam daf ci gën a sawar kon nag dugal leen sa loxo ci tele bi ndax ndaw ndaw ñi gën a mën a góorgóorlu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.